inna lillahi wa inna ilayhi rajiun siriya yi 2.0 am nañu dëj mariama noppalu na jërë ngeen jëf mbokk internet allo sénégal sëtuk sëriñ Sidi Mokhtar bi ma nga xamante ni moo toogoon ak maamam laataa moo nekk xalif moo nekkoon ak maamam jamono ji muy nekk xalif général waaye nee naa leen ku yàgga dem ci kër sëriñ Sidi Mokhtar jamono yi muy nekk xalif général daan nga xàmmee jëmm ji mu la daan dalal ndax mooy sëtam wi ko gën a jege mu jox ko nag li gën a sori ci moom muy xam-xam jox ko yar gi waaye jox ko muñ gi jox ko jikkoy jullit dëgg-dëgg ne ko àdduna dina dem ba jamono joo xamante ni njariñal jaam yi dara nekk sa loxo moo tax seen Cheikh Bara Gaydel loole la la ca jamono jooju la toll mbokk yi nuyuwaat nañ leen jaajëfal leen di leen ndokkeel ci weer wi ñu ne di weeru safar sëriñ Cheikh Bara Gaydel sëtu sëriñ Sidi Moxtaar bi sëtu ku tedd ki di sëriñ Touba gëj a génn lool waaye tombeek rek jamono am fu mu toll mu ni faw mu génn wax ak askan wi ñu waxtaan ak moom ci dese yi waaye waxtaan ak moom ci li nga xamante moom la ñuy coow diggante ñaari première daami yi fay Faye Sall ak madame Anna soxnas usman Sonko si danañ waxtaan ak sëriñ bi ci làmb yi ci jot a xew ci réew mi waaye sax ci Bougane ak taxawaayu ki nga xamante ni mooy Madiambal Diagne ci kanam Ousmane Sonko bala boobu dañ koy bàyyi Serigne Cheikh Bara Gaydel le petit fils de Serigne Touba le petit le petit fils de Serigne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye le petit fils de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mu munuy mbokki internet ko seetaan Serigne bi bismillah aousu billahi min asheytaani rajim wa raddallahu lasina kafaru bi xaysihim lam yanaalu xayra wa kafa allahu mu'mina alqitaala wa kaana laa xawina san mm-hmm. abadan bila nisa in wala xilaafin wala jidaalin wala mira in bayni wa bayna ahadin amin yaa rabbi jaay na Muhammad maa ngi ñaanal bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke suñ borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér di ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar Mbàkke borom yokk leeram tasuñ ci barkeem maa ngi nuyu waa Sénégal ak waa biti réew di nuyu góor jigéen mag ak ndaw di nuyu waa Allô Sénégal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen ak jàmm jërëjëf sëriñ bi ndeysaan jërëjëf ci dalal bi kontaan nañu bu baax waaye kër yi ma dem yëpp ñu di ay sëriñ kenn ku nekk am na luñ la jagleel am na luñ la nangul am na loo xamante ne say moroomi sëriñ bu ñu toogee dañ la koy seedeel ne yaa ca mën te sa wan sa wàll bi nga nekk bi nga xamante ni ñi la ko seedeel bari na muy wàllum seet dañ ni yaa ci mën ci réew mi ma ni tungunóore teew ñuy nataal mbàkke balla sëñ bi danga may jéggal waaye li ma dégg ci yow ci wàllu seet faaw nga leeral ko sa bopp sëñ bi ñu ngi leen nuyu yéen waa Allô Sénégal sëñ Lamine li ma laaj mën naa ca tontu waaw ndax olof Njaay day faral di wax ni bul fekkee ñebbe ci kaw cere nga jàppoon na ñeexa leen boole fañ àndee daa yàgg. ndeysaan dëgg la. gis nga juróom sama juróom-ñaari maam yëpp dañuy ay wàllu di kilifa. loolu mm-hmm. moom. Mm-hmm. nit bañ ko mu neex ko ci yam waaw. Sénégal nag léegi xamuñu. Mm-hmm. kuy wax dëgg. kuy wax leen neex lañ xam. wallaahi. xamuñu kuy wax dëgg lu ñu xam mooy kuy wax lu leen neex. Mhm. te man Cheikh Bara Gaye dal nekkuma ci loolu sama maam nopp na ci man bu la gis nga wàllum seet. Mhm. man maa àndoon nag sama maam Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke. ndeysaan. ñaar fukki at. Mhm. laa ànd ak moom Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke. gis nga sërëm yi génn yëpp di mbel-mbeli. billahi la si laa ilaha illa wa kenn ñëwut a daje man ci mbedd barki Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke. parce que xam nañ ne wax du dëgg. li may wax. doomu sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke ñu may dégg waaw ay sëtam ñu ngi may dégg mhm. sama maam Cheikh Sidi Moxtaar Mbàkke li mu def ci man billaahi la si laa ilaahi def ko ci benn sëtam allahu akbar sëñ bi man la bëggoon mhm. bu daan lekk ba noppi li bu ko deselee li ñëw ma bool bi du génn hmm? barke Cheikh Sidi Moxtaar Mbàkke gis nga nit waaw walli kenn du ko neenal xale yi nag am na lu ma leen doo wax mhm. nee naa la woon lu dëgg man naa yàgg waaye dul yegg fa njëm ñi ngi koy commencé di gis waaw waliyu kenn du ko neenal rawatina ku mel ni Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké nag nga xam ne boo daan wax ci nopp bi bu dul dëgg nopp bi na joor moo lay xamal léegi li kii di wax du dëgg billahi la si gis nga wàllum seet waaw ak wàllum listixaar waaw nit ñi dañ koy fooyee te mu nekk loo xamante ni yombut déedéet képp ku ma mas a seetal ci àddina mhm. wala ma listixaaral la woo nga ma téléphone sant ma gërëm ma yëkkati alal ju bari jox ma gis nga seet ak listixaar wax naa la ko yaakaar ni bokk ci. waaw fa laa nit daquma ko ci àddina. nit daquma seet ak listixaar ci àddina barke Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yëm ma ca ku yàlla bind. wax naa la xonq naa waaye du ma liir ndax bi sox bale fi la ma fekk moo tell jaaxal ma suñ la mel. déedéet tell gi du la jaaxal mais ñu bari dañoo am ndomba. mais kenn sañ a génn ci réew mi def ko milliardaire ne ndomb ak milliardaire nit takk ko tàmbalee jot xaalis ba ñu yaakaar dafa sacrifier baaraam wala dafa sacrifier doomam wala dafa sacrifier leneen te ci alxuraan ak xam-xam bu leer nañ nga ko sukkandikoo pour def nit milliardaire sëñ bi. xam nga damay faral di wax ne nit ku ne. waaw. bu ñu mhm. ba xam mas naa dem Gàmbi gii. wax naa ko waxati ko. yàlla xam na ko. mën naa la ñaanal nga am mhm. la defalagoon Sénégal yi wala lan la defalagoon ay nit di si jëfandiku. Mhm. gis nga wax bu dofee nopp ya koy dégg war a war a waaw gis nga wax naa leen na ndomba yu milliardaire gi mën mën ma cee def man lu taxaw mukk ndax bëri waa nañ ñoo añ seen yére yi gis ci ndomb ak baa Bara Gaydel muy traîner seen seen liggéey waaw waaw damay faral di wax ne lii moom spéci spécialiste li ñuy wax spécialiste nit ki nga xamante ni loolu laa gën a maîtriser ci àddina waaw muy doomu aadama ñu koy xeex ci wàllu alal mm-hmm. ma fexe ba mu alal ba ay mbokkam ràññee ko ba lu mu xewlate melentaan sax bi ko jógee ne ko woo ko ne ko waaw gis nga nit li la yàlla may waaw da koy partagé jaam yi dëgg la boo waxee am na jaam yu lay gëm am jaam yu la weddi noonu ak adduna ñoo ànd mm-hmm. mais defal la la war mm-hmm. yàlla mi ñu bind sax ñëpp masuñ ko gëm mm-hmm. lu ñu wax rek bu defee ñu ne def na bu woowee ñu ne woon bu tooy ñu ne tooy na rawatina ñun doomu aadama yi suñ biir waxal li nga xamante ni moom la la yàlla may waaw ñi yàlla dogal seen diggante ak ñoom ngeen war a jëflante ngeen jëflante waaw am doomu aadama yoo xam ne dañuy taq tilim seen xol xumaat duñ mas a jot Cheikh Bara Gaye del la ku takk sobe waaw ku soxal tilim waaw ku xumaat waaw ku dem ba déclassé wu ci àddina hmm. billahi la si doo mas jot parce que déclassé wu wàllu xaru la xaru mandargay xaru la hmm. gis nga ñaan kenn du ko sàgganee ñaan mooy nga naayal jullit dëgg la te seet ak listixaar nit ku ne war nga boo toogee ñaari fa ñett nga xool ka la doy nga woo ko mu xoolal la say mbir hmm. ngay génne sarax yàlla xam na mooy tax ay tawat du faral di gaar ay ñàkk du faral di gaar ay fausse rendez-vous nit jox la rendez-vous fausse. waaw wàllum génn sarax day tax kenn du la fausse rendez doo ñàkk ba nit xam ko. waaw te lu xew lu nit xew dal la ko wax maanaam génn sarax dafa baax. waaw nit ku nag da ngay nelaw gént ko sarax. loolu ay gàllankoor la. Mhm. da xool sa yaram. xool say biddiw xool say raxaan yi la nga xamante ni moom la soxla ci wàllu sarax. Mhm. nga defal ko ko loolu moo tax seet ak li si xaar baax. Hmm. gis nga wàllum mi ak milliardaire gi. waaw mënu ma cee defar lu taxaw. lii ak ndomb la. dañ ko war a aw day am set gaw day am sangoto ñetti fan lay àndal. waaw nee naa la gi képp ku ko takk. ngir alal joo xam say dañ laa xeeb ngir joo ñàkk. waaw billahi la si da dem ba leen dimbale. nee naa la sëñ Lamine. waaw. bi may tabax daara. di tabax juma. waaw Touba kenn ndax ma fa kër. sama kër ndakaaru kenn fii nii ma nekk maa ko moom. Mhm. luyu ko démb luyu ma ko tey maa moom kër gi. bu ngeen xoolee ba ma naa def day def émission ba tey. waaw mosuma déplacé wu. Hmm. man ci tappale déedéet aw ma garde ñi aw ma kenn du ma fëgg ni ma sami li ma defal baaxut. déedéet parce que dama ko doon sama maam. te li may dama koo xam. Hmm. dama hmm. defal na ma lépp sëñ bi nit ku la tabaxal kër. defal la ay tëli ba mu wër sampal loo ko ay pata lamp andil lay ndox sëñ bi kooku lu la desel. dara. naa topp ci ginnaaw kenn di daw. mukk ci yàlla am lu def sama dënn bi Cheikh Sidi Bata maag defal ma lépp. nit ki war nay xoolaat boppam chaque jour waaw képp ku ñu xeeb ngir wàllu alal wala ñu xeeb la ngir alal joo ñàkk ba tax lu ñu wax du ba tax lu loo say mbokk xew la di la ci xeeb mm-hmm. ñoo ma takkal ndomba gi billahi la si laa ilaha illaa huwa bu na tegoon ci barab ngay liggéey kenn du la fa mas a déjati ci poste boo bëgg ci ëtt dañ la koy fal mais dama mais ku la xam dëgg mm. yàgg ak yow dina xam ni faj yaa ci toog nit ku feebar ak lu feebar ba sori ca moom faj yaa ci toog ma ni nii nes tut gis fas yi nga xamante ni yaa ngi koy def wëñ wu weex la wu xonq wu ñuul sëñ bi wax ñu jàll ci fas yi doog a dem ci jaara li tax chaque jour may wax ci boo yi génn naan ay set seen si di maxtaar lañ waaw wax naa la ñëwuñoo dajeeg man ci mbedd yi wallahi ñëwuñoo dajeeg man ci parce que xam nañu li ñu wax du dëgg mhm. boo yi amuñu xam-xam jànguñ yaruwuñ billahi la si oh. cooku naa leen ba seen yaay yi dañ leen woo téléphone ginnaaw ñoom amuñu kilifa. Mhm. seen yaay yi dañ leen woo naan leen génn leen ci façon jàmbur gi. ah. waaw parce que amuñu xam-xam. mujj gi may woo seen waajur suuf naan leen bàyyi leen ñu def ginnaaw kuñ ko jox boo ko takkee ñaari fan ñett woo ma téléphone. Hmm? ma kalaame. waaw man nag damaa nekk nit koo xamante kilifa la hmm. kilifa boo jiitee mbooloo. waaw nee naa la fii amul benn sëb sëñ tubaa bu ma ëpp mbooloo fii senegal ak biti réew. Hmm? màggal Tuubaa ñëw nga sama kër. waaw waaw. ñaata waxtu nga def ci bundu kër bi. yàlla xam na ko màggal Tuubaa gi passé. waaw ñëw nga sama nga fa nga añee. Mhm. ñaata bi. gis nga nit. ngir bëgg gis sëñ dafa am lu yàlla di may ci boo ko sàgganee man Cheikh Bara Gaye sàgganee moom saa bopp. tax ñu dafa naqaree jot ak dafa naqaree gis naqariwu maa jot man dama dox ci ay affaire kasaw kasaw. da nga may woo wax farata wala nga coupé wala man ma coupé la bloqué la man awma temps. Mm-hmm. bi ñu nekk xaarewut man na duma xaare waaw parce que day bañ temps bi raw ma. dëgg la ci li may xëy di recevoir kenn du ko ci benn kilifa bu ndaw. Mhm. nee naa la fas gii maa ko doon sama maam Cheikh leer fas gi man maa ko doon sama maam Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke ci Touba Guy Mbind. Mhm. ci waxtu takkusaan. fas gi nee naa la képp ku paralysé nga toog ay at di faju fii ba biti réew. waaw jëru ko. képp koo xam da ngaa néew kattan ci wàllum néegu sëy waaw takk la xala. Mhm. boo tiimee soxna mu xeeb la mm-hmm. boo takkee fas gi taqale ko wàllu ñu kattan benn xale bu mbàkke mbàkke boo gis ma ko fiy joxe fii naan sot Sidi Moxtaar la waxul dëgg barke Seex Sidi Moxtaar Mbàkke yéen jox ay fas ngeen koy tagg ay wëñ rek seen ndigil loolu la leer barke Seex Sidi Moxtaar wuñ fas gi bisi Sidi Moxtaar toog xalifa boobu ña nga ca daara di jàng lool nay leer aw lu hmm? may làqat boobu ña nga ca daara di jàng fekk naa nañ ca daara ba tey di yëkkati samay paquet bi si di ko jox bu ñu fontoo nañ wuti xam-xam buñ bëggee jariñ doomu aadama yi ñaan kenn tenewu ko mais nag na ànd ak xam-xam ak dëgg mhm. ak fulla fayda dëgg la parce que képp koo xam takk nga ko waaw bu fekkee da ngaa néew kattan ci wàllu néegu sëy mhm. ba ilaa yow mi abadan dootoo dootoo jàmmatane wàllu néew kattan ndigul li métti da koy faj immédiatement paralysie moom waxuma ko boo ko takkee ñetti fan ñeenti fan waaw boo demoon fi bitim di faju lu mat dix ans mënut a faju boo ko takkee une semaine nga takkale wàllu paralysie mais li jomal sénégalais yi mooy mhm. secret bi nga xamante ni kenn mus koo gis ci jaaro nee nga jaaro yi gars yi di takk yépp xottu la secret bi ci manqué moom nga gëstu ba xam ko def ko ci jaaro boole ko ko sangat jaaro yi li tax ma koy faral di liggéey lu bëree bari waaw dama koy waxati ko wàllum ndaw ñi la waaw ak ñi nga xam dañ leen di bundaxatal seen wàllu bërëbu liggéeyukaay mhm. nit daa nekk ci bërëbu liggéeyukaay miin fa lool ñu xëy bëgg faa jëlee wala nit bëgg lijjanti ay papier moteur waaw wala nit ki nga xamante ni dafay toog ci place am di nelaw wala muy wax ay nit di leen yuuxu mhm. loolu foog gi ci àddina xam ne xabtal dafa ñëw mhm. wala place ba commencé yàqu delti ginnaaw mhm. jaaroon na ñu ko mën bëriwut parce que per yi dafa bëri ca wuute waaw ba xam nga ni am na benn per per per bi ñu def jaar benn per waaw buy jël 4 millions benn per rek parce que si laa ilaha benn per bi ñu def jaar benn per buy jar 4 millions laa la wax tëjul benn dërëm hmm? am na per yoo xamante ne ci njanaaw yi nga xamante ne ci lay moomay dund mm-hmm. ci lay jóge jaaro bi ma lay jox boo ko takkee wàllum mbay rek kaaraange ngay lijji dara mu të wala nga yor alal mënoo koo seere waaw takkal jaaro bi fépp foo ko takk toog kenn mënu la faa déjate ci kenn mënu la liggéey ba jàpp la ci loo am danga ko mën a téye su ko la gis bàyyi la xel moom jaaro bii bayre la bu tojee na moom day réer moom bayre la kaaraange la ubbiku la bu tojee mën nga koo teg fii dugg sàll bee di sangu gën doo fekk jaaru bi. mooy yóbbu boppam. du jaarub gone de. mukk waaw du xam-xamu gone loolu na leer. néew kattan jënax waaw. day yëg septième étage. Mhm. daanu commencé gas. ñu naan dem na demul ma commencé gas ci ay maam la ko doon noonu. <laughs> baatin la wax nag néew kattan sëñ bi. foo ko fekk toroxal foo ko fekk euh, bii moom wàllum néew kattan la. néew ma da koy faj. say wax day leer. waaw fajut néew kattan. Hmm. bu fekkee ne guddi gi doo sànni sa bopp lu bari. Mhm. wala bu yee gaaw wàccaat. Mhm. utiliser garab gi boo reeree pare bala nga tëdd. bi ngemb la dalay ngemb ne la demal bëri. kese nga bëri daan dem noppalu ji bu subaa bu bëggee bu bëriwaat daan dem noppalu ji bu jeexee nga wut si waat ko mooy sunguf bi na leer fajut néew kattan. waaw faj soxla lay def waaye fajut néew kattan moom wér noonu la leer. mais bi faj néew kattan nag. garab gii daal fas gi daal mooy faj wàllu néew kattan à vie takk sa ndigg. kenn dootu la maa takk xala waaw sa aaw sa ñaar ak ñetteel ak coro baag kenn mënut a takk xala ci àddina moom loolu la leer waaw waaw te da mel ni fas kurus ci kaw jigéen loolu moom ñi takk fas yëpp xam ko waaw waaw am na loo xamante ne nag moo sonal fe nit ñi moo ñu naan ko jàngaroy kajeer rek yi ni mel koo xool ci sénégalais ma ngi leen sonal chauffeur si tailleur si ñu bëri daal nee nañ ni murid da leen sonal si gis nga butéel bi ni mu tuutee nii mhm. la amee solo nee naa garab dëgg mhm. buy faj doo ci naan ba mu alerté la. Hmm. garab dëgg bi faj. waaw doo ci naan ba garab gi ginneeku la. garab moom bis bu la ginneeku la xamal ne fajatu la ndax bu faj buy faj. waaw bala nga cee bala commencé alerté wala ma ginneeku la moom fajal li nga bëgg. nga wér nee naa la garab bii. dañ ko composé ay gàncax yu bari te gàncax yëpp ci réew mi la juddoo fi la màggee fi la yaroo moom boobu yii. Hmm. Oh, gi laa wax de. waaw xam nga mosoo ko dégg. déedéet gàncax gi ci réew la juddoo fi la màggee fi la yaroo moom. déedéet oh, gàncax ko liggéey fii. waaw waaw gàncax réew mi la gis nga gis nga yii. day faj wàllum ndoxu siti mm-hmm. day faj jabet estomac hémorroïde moom garab bi waaw ba ci nikki kay koy sax di ko boole guro di ko lekk mm-hmm. bu yore asma day dañ ba jeex takk ci moom moom garab gi mooy traitement bi waaw day faj hémorroïde waaw jabet estomac ballonnement te day raxas deret ba nit ki buy tur ndox muy des da koy dindi am na ñoo xamante ni ñoom du ñoom ñoom ñoom daanaka chaque jour ñu commandé ci moom xaw ma dañ koy tuur xaw moom. ah waaw ah, xam nañ njëriñ li. waaw waaw. Hmm. njariñ de ku ko ku mos doo ko bàyyi de du la romb benn yoon waaye sëñ bi dama bëgg ñu waxtaan ci nopp li tax ma bëgg ñu waxtaan ci nopp mooy gone yi dañ koo jël koo wax mu ne la moom laa daan fawee ca daara ja te nopp mos nga ma fay wax lu doy waar ci wàllu nopp ak la nga ca dund ak jaloo rek yooyu noonu bëgguma cee dellusiwaat waaye nopp sëñ bi eh, gone yaa ngi koy fawee de am na ñu ma ci woo barki démb ay kilifa lañ nag feeñ nañ si tele bii. waaw. ginnaaw ñoom neen dañoo maa nopp man maa leen man sama jëmmi bopp man maa leen seetaan. waaw ñu dañuy nopp ñoom. Hmm. ci am na xale jigéen buñ bëgg a takk. fii nii ci penku bii nii nii. penku Dakaaru bii. waaw. ndaw si den dawloo ay weer buñ ma woon ñu ko def. sëñ bi saw di jaaxaan doo tooyal kenn sa bopp ngay tooyal xëpp yow. ñoom ñooy woote ni dañoo mën a nopp te am na gone gu leen të. démb lañ ma woo di ma sàkku ndimbal ma ni leen dee leen teg ci loxoy sénégalais lu leer. waaw waaw wax dëgg yàlla. te bàyyi tappale yi. Mm-hmm. boo ma woon nokkee ki may ki ki may wooloo noonu téléphone nga defal ko sa bopp <laughs> nañu waxante dëgg. ba jàppale nga ko gis nga noob dafa yombut. noob nag li tax ma ci dimbal doomu aadama yi mooy. Mm-hmm. dafa am ñoo xam si dañuy nekk bitim réew. wala ñu nekk fii. Mm-hmm. bëgganteeg nit maanaam kuy jàng ak koy am looy mën di jàng di ko fayal am njàngam. waaw wala nga koy toppatoo ay appartement am wala lépp mu xëy bis bëgg laa wor boo ñëwee loolu moom day dakk waaw waaw si sensé moom. laa la koy defal nga ko. bu fekkee ni nit ki nga xamante ne yéen ñaa mhm. mhm. da nga nekk ci place di liggéey koy defaraat fekk defaratu ko. Oh. da bëgg jël moom wala ñeneen bokk ba boo ko jox ñeneen. Mhm. loolu képp ku mu arrivé boo ñëwee man nobal sa diggante ba placé ba loolu ma doot ca waxati alhamdulilah sëñ bi bu doobee rek maanaam cas d'urgence dafa am moo tax mu jug def yu fi kilifa ngir sauver dama leen nobal nit ba ni ko ba ni ko day far moom moom day moom moom moom moom moom bëgg la ba faw moom sax far waaw waaw lu mu la bañ bañ bañ day far bëgg la ba faw allahu akbar xam-xam lu wér la lu am la cheikh bi dama bëgg ñu waxtaan ci réew mi lu gaa yi sañu ta wax sëñ bi da koy génn wax ñi ngi fàttaliku coupe daf coupe du monde bi bi xel yi di wax nga ni leen duñu weesu ñeenti match dañuy ñibbisi nga ni kuy jaay mayoon a nga ko wanteer suñu dernier match ndax xale yi des na tuuti mayo boo ko tegee fii di ko jaay téeméer duñ ko jënd waaye dañoo jëmoon ci élection nga waxoon ñu dara ci Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye Faye ñu teg ci suñu bët boobu ba léegi gisuñu la nga génn wax ci gouvernement bi ministre yi yorinu réew mi loo ciy wax d'abord balaa ñoo dikk ci euh, nomination yi ñu def démb. gouvernement bees bi daal la ma ci gis mooy jàmm ak salaam ak dal dal gis naa ko ci. Mhm. wax ji nag dafa xaw a bari. te wax ji wax ji moom wax moom heure bu bari ci ab teen rek. waaw wax wax moom heure bu bëree ci buntu teen. waaw xamal ne gars yi gars yi nga xam dañu amul bàgg. ci bëgg root. waaw maam ñooy welwele bëgg ab gars am bàgg. yàlla xam na dégg nga wax bi. waaw. Lamine bàyyi téléphone bi te wax ba te li ma lay wax. bismillah dama ne la. coow li ab teen laa la wax. waaw bu bëree coow rek xam na ñu amul baag te bëgg a root ñoo waral coow la. yàlla xam na ko. gis nga diggante Ousmane Sonko ak président. Bassirou Diomaye Faye Diomaye Faye. wax naa la sànq ne la bul fekk cere. Hmm? bul fekk ñebe ci kaw cere nga jàppoon ñeex leen boole. ca àll ba la ñu àndee. ca bi muy metti waaw ca àll ba la àndee. wax nga ma sànq ne ma Ousmane Sonko daaw ñu namee. ma ne la koo xam ne bi bi bali tàkk moytuwoo. <laughs> <laughs> waaw bu ngay tëralee bu ngay tëralee fetal yi moom foo jëm moom. bi ba liy tàkk moytuwoo. waaw bu arme yi tegoo xam nooy def nooy def. waaw def. dëgg la de. te bi ba liy ngay xuus. bis bu arme tegoo. Hmm. moom nga jomal réew mi moom. Ousmane Sonko foofu la toll. bi mu nekk opposition la dara. gis nga bu nit ñi xamoon bu nit ñi xamoon ne Ousmane Sonko ay wax. Hmm. du ko wàññi dara. Hmm. ay wax du ko déclassé loo daañu noppi ci ay mbiram. waaw waaw parce que dafa am loo xamante ne samp yàlla suñu borom la. Mhm. jiitu réew mi de. waaw waaye mi ngi mel ni moo jiite réew mi. ginnaaw ba fi président Macky Sall nekkee. Mhm. i ministre am moom moom dooni fi dara. ñu nangu ay affaire député am nangu mhm. la mel ni woon yor addina. waaw. waxoontuma xamante ne wax dëgg fi doon nii daanaka nag ginnaaw président. mooma. Ah. kam joxoñ sax moom lañ fal. Ah. moom Sonko ginnaaw président dama ne la jamono yooyu ba la joxoon yow mi Lamine mu joxoñ la. waaw waaw ñu fal la. na koo def doom ji jàng doo ko am mbag. waaw billaahi la si jamono boo ko joxe ñoom ñu fal ko. Ah, war nga xam ne kooku am na xam ne yàlla. wax dëgg yàlla mais nga gis démb mu. Sonko bu ko neex sa mën naa faram xar. am xar mën na koo fal. ñu fekk ko ci ci gerte bu di ko xonn di ko ci su fay borom xar wala ñu fay xar ma na leer <laughs> bay yooyu. mais mais gars est-ce que jàppoon ni dañoo dañuy séddoo réew mi. gannaaw ba waaw gis nga daaw loo xamante ni am na jamono yoo xamante ni. waaw kuñ gis nga takk bracelet Mhm. wala nga tudd Sonko. Mhm. jàpp ci kaso bi. yàlla xam wala ngay dem fenn di moytu. Mhm. am na jamono yoo xam ne boo takk bracelet booy dugg ci bureau wala naan da nga koy summi def ko nag du xuus gis nga réew mi du li réew mi du li ñuy pàccoo. waaw kenn ku ne lam yàlla nañ ko ko jox. mu jeex tàkk. nit nag mënut a dëkk ci xeex. ñuy damme tànkam mag damme loxoom di ko xoosal di ko tëjee di ko xañ ab ak njabootam nangam nangam bis ñëw ñun lii waruñu ko jox la moo tax waruñu ko waruñu ko jox. mais tey bu doon bu ñu doon xool est-ce que dinañ dinañ. dinañ fa teg ñu mérité nga ne ma doo jot. nga may xeex di ma sëriñ toog bëgguñu tëj maag bëgguñu rey maag lépp. Mm-hmm. ma koy jot ci loolu nag Lamine ma ba di la xëccaat bëgg laay boole sama biir nag loolu mënul nekk. Sénégal nañu waxoon naa la sànq ni xamuñu xam-xam wax ju neex lañ bëgg a dégg mais bëgguñu dégg xam-xam. Mm-hmm. wax nga dëgg de. Sonko ak Diomaye dañu ay nit ñoo xamante mm-hmm. dañu ay xale yoo xamante ni. Mhm. dañoo xam li xew ci réew bi gis nga ma ni ma yàlla jàngalee àddina ba ma xam àddina. waaw xam bu ma lëmin ne jàkk ma xam ban façon doomu aadama la. Mhm. bu lëmin duggee sama kër gi ma xam ba façon doomu aadama dugg sama kër gi. waaw noonu la yàlla gars yi jàng noonu la yàlla jàngalee Sonko jumaay xam doomu aadama moo tax fi noonu seen wax yi yëpp mbaw la rek di yàgg-yàgg bañ tat ba ma ma ba tax ñu jàdd yoon wi bëgg mais ñi nga xamante ni jamono ji ñoom ñoo tàmbalee jug ku mel ni Bougane gis nañ ko mu tàmbalee jug boobu ba léegi mi ngi sànni xeer bëkki Dembo Ndiaye ma Madiambal la moo jug moom moom it nee na Ousmane Sonko boobu ba léegi eh, déclaration politique générale du ko def nee na day day nax sénégalais rek. da dem dama waxtaan sama benn xarit ma ne ko. waaw. Bougane dama ne dafa xamul ko yàlla may. Hmm. Bougane bu tegoo ci ko télé bi a Diomaye Faye tegoo ci ko télé kenn doo xamee président mooy jàll wala du jàll. simi bu la ko yàlla mayee mënoo doylu ca toog ko sànn sa liggéey. <laughs> Hmm? ku yàlla may loolu ngi yàlla mënoo dellu ci xosaan sa am sa dignité mhm. ñoom ñëpp xam nañu taalibe la ku yarlu la ku nangoo liggéey la ñoo xam nañ loolu waaw yorom nekku ci lenn mhm. mais président Diomaye Faye bu tegoo ci kaw télé bii waaw buggaan tegoo ci kaw télé bii ak i otoom hmm. kenn du xam kan mooy jàll waaye si bu yàlla may loolu si bi doo xam sa bopp wax dëgg yàlla xam fa nga yem ah man de ma yàlla may loolu wax dëgg yàlla man waxuma la président waaye léeg-léeg sax duñu am soxla léeg-léeg jiite lu ma sax yaa ngi jëriñ ay ndaw jël nga ay sën ay emploi ñu lay liggéeyal mhm. ngay ne fay ñuy faj seen soxla mhm. di yóbbul seen i njaboot mhm. loolu doon sax jaamu yàlla wax dëgg yàlla kon na bugaan du ay politique ah man daal xamul li muy daal waaye koo xamante ni daal boo tego ci ko télé présenté ko ci ko télé bi kenn du xam ne oto yi yan la waaw loolu daal si bi doy na seen sant yàlla man daal foofu laa yema moom yàlla xam na ko mais ñaari soxnay euh, premier ministre soxnaam ni madame euh, la waxu jàll la loolu loolu waxi jàll la. ah yooyu bu doon am. waaw bu doon am. waaw xam nga jamono yi am. waaw jamono yi naan Sonko faatu naag faatu wut mu faatoog ñoo ngi koy kii ak mi ngi réellement sax waaw bu ndimbal yooyu doon am jamono yooyu lay am. parce que dafa am yoo xamante ni. Mm-hmm. nit ñi faaw ñu génn ba a teg taawaaju lu bees. bu demee ba amul lu bees nag ñu teg benn nit ray ko daal bind rib ni faatu na. maa ci commentaire mais leneen lu bees lu ma lay indil mooy Adji saar bërki Dembo njaay la génn mel ni kuy kokkali sénégalais yi moom di wax lu ko neex ci ay ci ci ci ab vidéo moom it Adji jotul ñu fàttali ñu mu doon mu fàttali boppam. gis nga réew mi. waaw. bu ñu yàkkam ci dara. ndeysaan. lu ñu bëgg mën a jënd dana ko. Mhm. bëgg mën rek. dana la jëndi ko ci nguur gi nit mënoo jekk-jekk rek. président Diomaye Faye mënut a li muy li muy yor yor yor yor yor réew mi. waaw. bëggoon dem Touba mu ta jékki-jékki nag cëpp ne lay faaw moom doon éducation la jël faaw mu am ay waaw mu ay ci ko air bi mënul mm-hmm. ñàkk cëpp ni lay moom mm-hmm. jékki ne cëpp ni lay moom fii do nga ko man moom mooy diggante wadde fii taa taawal ji fa waaw nañ def ndànk lu ñu bëgg mën a jël doona la jëndiku mm-hmm. mais doona la jëndi mbir force force loolu moom wax di yàlla moom moom mënul nekk wallaahi ah kontaan nañu ne wax dëgg yàlla ndax jamono ji la génne mooy jamono ji baax looy looy tëjee mbokk taalibe ci ci màggal gi ñu jëm ci safar gi eh, waajal bés bi nga xamante ni ku tedd ki rek ko ma waata waral di wax ni ko ko defee woon daaw waaw yéen waa Allô Sénégal mm-hmm. ngeen defee ko ren noonu incha ñaan yàlla képp kuy màggal si mm-hmm. ñu jiite ñu jóge bitim réew ak mm-hmm. ñu jóge Sénégal ak ñu jóge ci fay foo lem fa àdduna nit jóge rek waaw yàlla na nga dugg ci bàcc bismillahi rahmaani rahim ginaat ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin waay ci ñi seen kër am ndox mm-hmm. ba mu mënuñu faa màggalee mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla suñu borom balaa màggal Tuubaa gi amiin waay yàlla na yàlla defal tawfeex ba kenn ku ne mën a màggal sa kër ci ak dal li may ñaax daal na xam ne nit ñi xam ne màggal Tuubaa du ak noos mm-hmm. màggal Tuubaa ak jaamu yàlla waaw waaw la fàttaliku si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul fàttaliku nag bul jël la neex dëgg di nga fàttali da ngay fàttaliku la naqari woon bu ko defee da nga mën a toog concentré sa cours di ñaan yàlla suñu borom du ko looloo tax ñuy woote màggal Tuubaa mais du ak noos ak mbumbaay mhm. nangam nangam mhm. danga gis ko màggal Tuubaa ba ba ñibbi du julli waxtu waaw waaw ci bu Sëñ Tuubaa doon dund de billaahi lasi laa ilaaha illaa huwa mhm. Sëñ Tuubaa nekkoon waaw ñi màggal Tuubaa ku fa ñëw waxtu jot jot danga kàbbar julli yàlla xam na ko wala kon bu la fekkee ngay taal añ nan la wax yàkkal añ wala nga baaree ko foofu ba kere nga julli ba pare oh. nañ xam lañu indi waa Tuubaa te xam ne màggal du affaire yi puukareew nangam nangam. déedéet màggal romb na loolu. màggal Tuubaa du feetu jël coupe de Afrique du feetu jël coupe de monde. Mm-hmm. du feetu ku jël maam looy xëccoo ci réew mi. allahu akbar mi ngi noonu nga xam dem ci jàmm. Mm-hmm. ñëw ci jàmm. Mm-hmm. waajal gàmm gi nag nga programme yi moom daanaka loo jóge leneen ñëwaat. macha allah mi ngi noonu mbokki a ngi ko doon laaj nag fan yëpp ne sëtu tedd ki sëtu ku baax ki sëtu ku bi fu mu ci waxtaan yu neex yi waxtaan yu am solo yi waaye njariñ lu baax li muy génneel réew mi moo tax rek ñu dem jëlil leen ko ci lu muy xat-xat lu muy métti métti waaye lu màggal gi gën a jege ñu ni faw ñu génne ko rek ñu jariñu ñun ñëpp mbokk internet yi jaajëfal lañ leen jox leen dig daje ëllëg seen yeneen émission jërë ngeen jëf